taneeguñu lu fi nekkoon damay wax ne sax ñi fi nekkoon ñoo leen taneeguñ parce que ñun dañoo amoon ci ñoom yaakaar amoon lu ñu métti ci ko ci état bi fi nekkoon yëpp ñun ñëpp sénégalais yëpp dajaloo bale leen indi ay xale yu ndaw. Mm. léegi nag xale yu ndaw yooyu premier acte bi ñu def mooy euh, am na ñoo xamante ne Senghor moom la leen déglu doon déglu bu ñuy waxtaan Senghor mosul am benn solution Abdou Diouf moom la doon déglu amuñu solution. Ablaye Wade ñooñu la ñu indiwaat. ñooñu lañu ñu indiwaat ñu woo kaay la ñu waxtaan. magu démb yi. magu barkaati démb yi. ñi tuddee Maya ñooñu bu ñu amoon xalaat gis nga ñooñu ñun ñun dañu ne daf ñoo leer ne ñooñu bu ñu amoon xalaat kon Macky Sall réussir na ci dund bi. <laughs> Ah, amuñ ci xalaat la de ak ñi nga xamante ne ñoom ñu àndal yéen. mënoon man nee naa la dañ ma woo 9h laa fa ñëw. waaw ci ruq lañ la mm-hmm. bi ma ñëwee toog ci lu ma sax bëggoon naa jël kaddu mayuñ ma kaddu. mayuñu la kaddu mayuñ ma kaddu suñ président rek moo wax. parce que dañoo ñëw ñu ne ñan ñuy bind ñu ñu exposé ba pare ñu ne ñan ñooy bind ñun ñëpp ñu bind. même président Assis sax mere na fa sax président Assis représentant am meroon na tuut foofu parce que association yëpp wax nañ moom mu bugg wax ñu ne ko arrêté nañ ministère bi ne arrêté na. xam nga loolu woote nit ñi ñu def ko ci jour vendredi ministère bi ne woon 9 moom mu toog ba 10h et hmm. waaw na fa loolu yëpp am na fa 10h la ñëw te 9 la waxoon nit mise à place nit ñi ñëw ñëpp ñëw 9 moom mu toog ba 10h et quelque a ñëw mais Sénégal il faut ñun ñu yeew ñun ah,